jàng ci xul huwa allahu juróom benn yoon dees na ko ca wutal ca àjjana juróom ñetti junniy soxna dees na ko boole ci dëkkandoo yonente bi sallallahu taala alayhi wa te dana mel ni ku jàng tawraat ak injil ak zabur ak furxaan tey dees na ko jéggal bàkkaaram yépp lu mu bari bari doon te tol na ni duusi géej dees na ko ci bindal tuyaabay jaamu yàlla ak juróom ñaar fukki at mel na ni it ko goreel junniy jaam te bu bis penc ba dees na ko ràmm loolu ko soob ci naroon a dem sawara te dana tabbi àjjana te kenn du ko isaab kon guddik fukkeel ga ak ñaara ngoog yàlla nañu sunu borom may xel mu set mu sell muñ ko mën a matale bi jaayi sayyiduna muhammad bi barakati dahru ramadan al mubarak wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu